asalaamaaleykum seen internet yu Dakar Midi ñu ngi leen nuyu di tey nag ñoom fii nga xam mooy Feeling Dakar temps yii duggoon nañ fi sàcc fi tey ñu ñëwaat gisaat tamit ñu duggaat fi sàccaat fi ba gars yi yóbbu la fee nga xam mooy gendarmerie waaye dañ fi cité ki nga xam ne mooy mbay ba waa koñ bi bañ génni génn nañ pour dàq booyooyu waaye booyooyu doon cité si li nga xam ne mooy mbay da leen koy bàyyi rek mu nuyoo wax ñu problème bi na la demee gannaaw bañ la nuyoo. mais am nga lan la lan la c'est Sénégal il faut ñu ñu yeewu parce que kii borom tele bi sama xarit la waaw man sama xarit la te dumay du du du man su ma jàppee suma jàppee du ma bàyyi soo ma wanee ngor duma ma bàyyi sooy dee damay dee comprendre nga keroog dañoo dugg sàcc yi dañoo dugg fii ay matériels yoo xamante ne ay cinq keroog def naa ko si benn keroog ñëw naa fii si benn plateau wax ko. mais dañ ma doon ree matériel yoo xamante ay 5 millions lay jar yi ay 10 millions yi ay 20 millions am na matériel yoo xamante ne li mu am télé yi sax amuñu ko kon mi ngi góorgóorlu dëkk bi dafa metti ku ku ku dem bitim réew di jënd di di di di di di kii état nekkul ci ginnaawam dara nekk ci ginnaawam ay wuyu ay samba yoo xamante ne liggéeyul dara liggéeyuñu vole ah nekk jigéen ah nekk ak caga volé caga ah naan sàngara yamba rek rek rek rek mooy seen métier bëgg ko koo yàqal du ma ko nangu comprendre nga ba ma waxee loolu ba pare léegi booy soupçonné ma ne ma dañ lay rey comprendre nga ma ni nag li fi mu nekk nii tey tey ma jaar nii ma ma tey tamit ñu waat ma ne ma booy dañoo duggaat foofu léegi ma dem police gendarmerie laa jóge maa jabaru bàmba bisu comprendre nga ma ñëwaat fii booy sibile ma ne ma yow dañ lay yow si boppam du kii ma sama jàkkaarloog man ne ma dinañ la ki dinañ la rey comprendre nga. léegi nag su demee ba menace tamit di si am di si di di am si ay ay ay loo ne ay samba booy la tekkuñu dara si dëkk bi am duñu sapeur pompier duñu raxaskatu oto duñu tus comprendre nga liggéeyuñu dara réew mi dama bëgg nag ah justice nag ah war a xoolaat dëkk dëkk bi nañ xoolaat dëkk bi bu baax a baax a baax parce boo yoo xamante ne du ñu liggéey xale yu góor yoo xam góor yoo xam xool li ma tuutee xool li ma tuutee xam kay laay nelaw 6 heures di matin xam nga kay laay tëdd xam nga laay yeewu 8 heures kon kooku samay nelaw doy na parce que su ma ko deful du am lu ma lekk parce que du ñaan kenn soxlawuma kenn di may ma du ma ñaan kenn du ma woo kenn bëgguma du ma sàcc du ma lekk alalu jàmbur du ma fen du ma jëw nit ku nekk diiñal nit ku nekk diiñal man man dëkk lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër xoolal demal def leneen surtout sauf saa sàcc kii góor la ki ngeen ki ngeen dugg ki ngeen dugg euh, këram nii nii góor la comme yéen dafa yor ay ay ay ay ay ay dafa yor awra ngeen yor awra comprendre nga oui bu leen bu bu bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen seen bopp ku yor awra ah ba pare xam na man moo gën a jaaxal di dañ siy boole waali waali yéen yéen yéen mayu leen saraxu leen ngeen koy xaar di ko mbubboo. su nekkul waa lu mu dëkk fii moo tax. ngeen ngeen gën a dañ ko nar a salteel xam nga la waa li yoonam nekk si waa xamu leen sax léegi nii il faut ñu def bolok ah ne yàbb waa lañ xaar waa lañ xaar tux yàmba ah nar basé wu de di si koñ naan ay waali ba fi nekk nii koñ bi dut nañu baaram tuuma waali waali waali waali waali pourquoi ñu koy tooñ yoonam nekk si ñoom dañu dem liggéey. nañ dem liggéey yi te bàyyi naan ay waa lañu xaar pour ñaan léegi les gars fàqumaan yeeg ñoo ñëpp wëlbatiku ne si ginnaaw waali suñu waxee ñu jiital tur waali pour ñoo pourquoi nañ dem liggéey yi ngir yàlla Sénégal nañ dem liggéey yi Sénégal nañ dem liggéey yi bàyyi xel caaxaan baaxul man moom ku ma laal <laughs> est que yow Mbaye man wóorut na yow ngay dox yow kase comme nga menacé nañ la ah, ah. yow fa nga fekk bi nga bi nga ñëw gis nga fi nga fekk menace bi ba ma wooyee di menacé naan yow di nga dinañ la rey comprendre nga man nag ah maa ngi nii sumeeku naa surtout na xeex naa ñoom sax <laughs> ba ba xeex naa ñoom comprendre nga xeex naa ñoom man suma ma yorul dara dara amul lenn man maa leen gën a bandi Sénégal dañoo jékki-jékki rek gis ma si télé bi xamuñu woon lan laa maa leen gën li ñuy nekk man maa leen si njëkkoon fuuf man sàcc naa sàcc naa 10 ans comprendre nga nekk naa si kóor yi te en 10 ans muy 20 ans. kon dund naa yoo xamante ne fi mu nekk nii barke alxuraanul karim booy yi turo sa booy dañ leen bàyyi si ñu nekkee nañ dem liggéey yi booy Sénégal police police mënul fu ne mu dugg fa am na loo xamante ne sa koñ ñoo ñoo koy réglé koñ moo koy réglé du ay dëgg ñu basé ay kër police ak yii parce que police tamit dañoo sonn dañoo am leneen lu ñuy dox comprendre nga gendarmerie dañoo am leneen lu ñuy dox fi mu nekk nii dëkk bi kenn amatul sécurité ndax ay ay ay boo yoo xamante ne massacre nañ seen seen seen kii seen vie tux yamba ah, nekk jigéen ah caga nekk si caga ji ba xëy euh, euh, fanaan si caga xëy yàmba ah saax saaxe seen diin eh, seen seen seen seen life ah, di taxawaalu ah euh, ba pare di menacé waale loolu dafa war a dàq Sénégal comprendre nga man nag am naa seeni photo am naa seen lépp soo moytul incha allah ku ma laal wala ku ma saaga. ku ma saaga wala ku ma laal wala ku may waaj jege am naa droit dóor la bal waaw parce que fi nekk nii police eh, ñi ma ñi sama ginnaaw fi nekk nii. tey dañuy wax tey dañuy waxtaan tuuti tey yow tey tey dañ laa menacé démb nañ dem gis nañ li nga xam ne moo xew mbuur est-ce que tey jii na li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy. mooy mooy waaw Sénégal loolu dama bëgg Antoine Philippe Senghor ah Alpha Antoine na dimbalee sama xarit la xoolal na dimbale symboliser su nekkee li ñu leen di fay motul bëriwul ñu yokkal leen seen salaire billaay wallaay taalaay dama bëgg policiers yi ñu yokkal leen seen salaire ñu ñu ñu ñu ñu ñu def couvre-feu beneen couvre-feu war a am non il faut ñu couvre-feu parce que parce que couvre-feu bi bi mu amee woon gars yi kii euh, euh, mais affaire yi jeexoon na man mbuur sama yaay fa la dëkk sama papa fa la dëkk xaw ma euh, samay rak fa lañ dëkk te marché boobu ñu reyee kooko sama yaay fa la nekk fa fa lañ duggee imaginer sama yaay tollool euh, euh, euh, yamoon si loolu dañ koy rey man yenn saa yi mu ñëw fi kan ñëw di taxawaal si si si si si kii bi si si si si si si marché bi su ma si tombee woon démb la samedi duñ ma rey non léegi nag ma dee quoi sama yaay dee wala ma dee sama yaay dee xam nga mu ñu bàyyi ma si fitna loolu si trop xam nga la ku ku ku rayate dañ laa war a rey comme si policiers yi amatuñu ko kii yow. xool xool mais mais mais xoolal Sonko keroog ba mu naan ba mu naan day day dañ koy arrêté mbedd mi dafa am sécurité y a de sécurité sécurité boobu nag bu mu wàcc Sénégal ah Sonko mënumaa gëm ne Sonko suy waaj a génn suy gé suy suy suy waaj dem wuy ji ah xaw ma pelante dëkk bi day fees dell ak i policier ah ramasse bu tar barki dem damaa génn di di jënd ko ko ah ñu arrêté ma ah ma ne policier bi su su soo ñooy arrêté da koy xam. police yaa ngi xaw ma sama booy yaa ngi si digg bi man soo ma bu ma wax des na tuuti ku ma ku ma ramasse du ma wax ak yow comprendre nga nekk si dëkk bi ah di liggéey di wàcc ah dëgg su ngeen di ramasse da ngeen di ramasse ki nga xam ne jar naa ramasse ki nga xam ne du du du tekkiwul du si digg bi di samba booy yi ngeen war a ramasse nangootuma koo xamante ne. ku ku ku set wicc la ah, am kër am jabar ngeen koy ramas su ngeen ramas da ngeen ne ramas da ngeen dem ramas samba booy yi fi samba booy yi nekk ngeen dem foofu jaayante kook ñoom mais du toog si ay tali ah ku dox nga ne ko NCPS ah police arrêté ah non booy lan dem leen ñi nga xam ne ñooy rey dëkk ñi nga xam ne dafa manqué sécurité ngeen dem foofu xam nga voilà poste bi rond xam ngeen ne foofu am na sécurité ngeen taxaw ah ngeen taxaw te lu ngeen fay def. rond-point yi bii rond-point yëpp am nañ sécurité ngeen taxaw du rond-point yëpp du ngeen dugg surtout koñ yi fi am agression ngeen dugg fa ah jàpp booy yi nga xamante ne dañuy tux di fanaan si caga ji ah di rey nit ñi ah naan duñu sapeur ah duñu menuisier bétail yi duñu duñu duñu duñu garde corps duñu tus liggéey ñu tus réew mi di yàqal nit ñi di ray seen mbak di rey ah di jam nit ñi ah di saaga nit ñi di menacer nit ñi ba pare ñu bokk leen ñu ñooñu duñ leen jàpp duñ leen def dara ñun nag nga xamante nañu sangu ànd ak suñu gel ah toog si dem réseau wala feneen ñu ñuy ak eh, ñu naan police loolu moom c'est jeex na trop surtout loolu moom jeex na maa ngi ko benn police eh. police bu ma toxati mu naan ay eh, damay ramas maag yow la Antoine sama xarit la comprendre nga yokkalal police yi seen seen seen kii yokkal leen yokkal leen police yi ñu liggéey parce que fii entreprise la lu mu bon bon bon mi mi ngi fay. cinq euh, euh, euh, dix personnes wala cent personnes wala cinquante personnes loolu nag fii su ko suñ jàppee suñ sàccoon ñoom dañuy dem soo semé comprendre nga waaw yow ah yee loolu boo fi am Sénégal c'est trop c'est trop